ok voilà nee leen saa su damay am mbégte di jàkkaarloo ak yéen ci seen seen préféré muy euh, Bégueye Pilote ak tey nag ñu ngi fi euh, si biir émission bi nga xam ne mooy euh, Bégueye ñu ah. dalal benn artiste comédien bu mag artiste sox complet moom lay muy ah, maam. Ah, ah. ran ran. <laughs> changel liggéey nga bañ. ok d' euh, maam laa nuyu naa la nuyu naa la. nuyu fay maam laa dèjà commencé gu ñu naan euh, allahu akbar yooyu yooyu du genre euh, man man xam na ni nii laa mën a waxee te wax day li li temps. kon ñom ñi nga xamni ñu ngi bay seen yité yite di ma ci sétan kon yow tamit noonu nga wara am sa temps nga déglu mo te nga jox mo bu dé allahu akbar respect respect yalla baxna adina mu mané ma ngi lay fay di la ñaanal yalla dafa la japp ci ñew bi nga ñew fi xam nga euh, da ngay wax nit may da ngay yakamti wax di ñew waye yow say wax ci do yi mi jaar moy tax bala ñu ci man day mit léegi na dama bëgg bu ëllëgé boy wax muy jaar ci da day daa damay bëgg daal mu gaaw lool day day xaw a kii wala ngay daa jëfandikoo laala lu bari ah mën naa trop na def moom laa lii bi mën naa ñàkk de wàññi bi man ah. mën de waaye ma ne do projet ban lay wàññi waaye nag ab projet léeg-léeg nga tegab CD mu desee kii nga fompaat ka loolu kay ok dara naw ji ok d'accord léegi mam daan mam daan maam tey tem como, li ma leen wax mooy euh, Mame Rane nit la koo xam ne yaakaar naa ñi ko xam bari na kenn dootu ko présenté ndax nit la koo xam ne euh, ci audio la la nit ñi xamee mhm. waaye bi yàlla dogalee mu war a feeñ mu dem feeñ ci télé boobu ñu naa TFM mhm. njëkke woon ci rajo bi mhm. njëkke woon fa émission bu mu ci. Euh, Walfadjri ci la dem RFM dafa émission bi mu jugee RFM nag ci la dem si télé bi dafa commencé faa def ay dagaan door pa ak seetu bi ci la ko ñëpp gën a ràññee kooku mooy Mamourane euh, borom na ngeen def ak lan. ok d'accord déjà euh, da nga ñëw si loo xam ni ma ñëwaguma si déjà yaa ngi may humilier te sama. question question man boo cinq mots nga décrire la Mamourane Mamourane mooy kan avant ñuy dem si. personnage ah, Mamourane parce que parce que xam nga euh, Mamran mooy euh, nit koo xamee mhm. juddoo caaray géej mhm. euh, juddoo yëmbal mhm. màgge caaray sur mer daan dem fii ci géej gi gaal yaa ngi noonu ngeen gis waaw jaar na électricien def naa téer waaye bi yàlla dogee dogalee ma nekk nit koo xamee war nañ maa xam ñu gën maa ràññee ci audio yi ma doon def Mamran nag nekk nit koo xamee fu mu toog day bëgg ñëpp ne ci jàmm kaf ak ree la ko ñëpp xamee mhm. donc ba yàlla dogal tey mhm. bi koy waa Sénégal waree xam mhm. ñu xam ko ci li nga xamante ni tey ji mooy audio yi ma doon def euh, ci bi ma lay wax léegi nii na la maa ngi commencé TFM euh, ci nga ma wax ne ma exeegoo foofu waaye comme exeegoo foofu dañuy bàyyi foofu ba nga ñëw fa donc waaw donc daal kooku mooy Maodo oh ok d'accord euh, tey dégg naa ni ci ay ah, audio audio commencé ah. tey amaana tey am na kuy seetaan seetaan muy mhm. xale bu ndaw boo xam ne mhm. peut-être audio yi ba nga koy def euh, ko fekkee woon parce que tey ci audio yooyu rek doon ci ñëwaat nga a àndal yaa ngi euh, loolu euh, loo xam ne tey mm. Euh, dina metti lool xam naa ne ci yàlla émission bu mu mus a def émission bi parce que ñaari émission laay def damay jël ci émission ak sama émission metti na Allah waaw mais lu muy. waaw dañuy lii daal loolu muñ doo xamul kañ lay jëf émission boo xamul xamul kañ lay jëf nii nga ko nar a jàppoo ak man lii day métti di la àggalil ay wax bëgg a wax day métti ah. man mosuma gis lu mel nii. waaw d'accord léegi nga nga nga ma ñëw benn audio rek. ñu ah. mën a yaatu ma Maodo. salaamaaleykum baal leen ba ne waa réew mi ma ne ah, ah xari tabaski mu toll ah baan ñaari façon xara am de ah pëf yàlla na nu yàlla may pëf a ah, wala mu may ñu cas buñ ci am baax na ndax boo déggee ah kuy lakk nga dégg cas mooy xari coog ah, kii xari yar yi bo déggee pëf wa ah, moy xari togal yi mooy yi nga xamé da ngay ah tabaski ba pare ñu nan an sa papu na da amé bëñ moy xari togal yi koy def yalla nu yalla may xari ni yow ci potu lamp ah. wa lool lay may ah, ñi nga xamé ñoni ñoo di leen wax né yalla nu yalla may xari tabaski réew mi métti allahu akbar nande eh. yàlla <laughs> mais yënga ni ba yënga ni man en fait man dama la bëgg dama la yàgg bëgg do do do doxal tay maa ngi yi tok tok waaw loolu tey lëkk la mbégte la. ndeysaan euh, tey Mame Ngane bu ñu xam fan la maanaam audio yi la commencé mais après audio nan la ko euh, utiliser nan nan la travail audio yi ba tey ñu xam te ñu xam te kan mooy Mame Ngane. waaw kii Mame Ngane mooy que ne mooy li ma la wax léegi Mame Ngane moom nekk na nit boo xamee comme ni ma la ko waxee sànq. Mm-hmm. audio yi bi ma koy def def ma ko woon pour ay siiw mhm. léeg-léeg damay wax xale yi ne leen boo leen di euh, def dara bu leen ci séntu ku leen ku leen ku leen di seetaan ak ku leen di suivre mhm. da koy def mu doon lu naturel mhm. bu waree génn day génn te bu génnee day doon loo xamante ne da lay noppal yow bërki démb am na ku ma ciy waxal mu ne ma dafa bëgg ku ko feeñal bëgg ma boole ka aba euh, waxa waxa wax ma ne li ma lay ñaan daal mooy nga xaar ba ñu gisal la ñoom seen bopp buñ la gisalee seen bopp mm-hmm. boo demee di nga fa am personnalité di nga fa am dignité mm-hmm. mais boo dawee fekk leen boo fa demee doo fa am benn kii mënoo faa def lu leen doy mm-hmm. yaa leen wëri man euh, dama koy xool comme sama bopp man mosumaa dem ci kenn ka invité ma mosumaa dem fenn ne euh, dama bëgg ngeen invité li ma doon def dama koy def sama néeg surtout mu ci woon ay siiw ak yooyu dama ko doon def naturel actualité bu am maam raan ne ci néegam fekk ngeen ma fekk noonu foofu laay ne ci néeg bi def samay ojo ñu monte ko ñu sànni ko Mm-hmm. jublu mu ci woon dara xaalis taxul ma koy def parce que mm-hmm. euh, ñi may wax dañ lay dañ lay bëggee dafa bari mm-hmm. te man aw ma seen fay ndax bu leen neexoon man jëndalu ma leen connexion donc fay àddina bi yëpp tey ba diaspora bi maa ngi leen di nuyu fu ne la ma nit di wooye mais danga may bëggal c'est que bu match Real jeexee sax dan naan ana Mamran donc may équipe bu mag bi euh, mu ngi nii moom laa sol nii euh, te am na kes coupe loolu du neex waa Barça waye ñu ngi leen ci massa bu baax. Mhm. di leen wax ne loolu la yalla dogal. mais maam naan sama bir émission mo ngay defee say gaaru. daa wala non non ay rer Real ak bassal loolu. wa déedéet maam daan kan boko xamé dang koy xamé ak Real. bon ah, l'islam mooy ma ma toog fi ba bu jub fi te du ma barsa ak Real. loolu loolu loolu loolu. dina am gaaruwaale léegi ma bo nekkee. ah bassal wa ñu ngi leen di maataw ndax yeen ren bo leen yëkkee walis ngeen yékké comme yalla dogal na ren. Ah, li eh, li dëkk bi eh, neex neex yëpp bokk mm-hmm. leen ci ñi am mbégte mm-hmm. dañ leen ci masawu ci loolu di wax ne ñun ak yéen ay ay doomi ndey lan ñun buñ ko jëlee mel ni jël ngeen ko waaw euh, Mame Rane euh, tey ñu bëri tey ñu xamale artiste euh, comédien comédien comédien waaw mm-hmm. Mame Rane danga may bàyyi may eh, àggale voilà merci beaucoup tey la si artiste boobu est-ce que euh, yaa ngi koy mélanger ak beneen affaire wala si kuni boobu dong ni yàlla tere ko defee lekkam ngoñ bi la ilaha illa man jaaykat laa business man la ku xam Maodo ci business la xam ay yére laa doon jaay ci loolu maa ngi yëngu ci lu nekk bi ma la waxee na la bi ma dematul géej man ci business dama doon dem Gambie di jaay ambulance bi bokk na ci eh, dekk bi ñi fi dekk ci dekk bi lebb bo xamantene ni di wër di jaay fi ci dekk bi ci njëkk def mm-hmm. tay bari na fi ño xamé ne bu ñu ci business man ma leen ci dugal mm-hmm. ah ñun ay liggéey kat lañu doon parce que suñu kër gaan xalé ndaw ngay gis ni sa bu ñu xëyee ñu ngi dem uti luñ am ñun yaakaaroon ci business eh, ci ci ci comédie Sénégal ar bi mm-hmm. joxnu ko cëram ku yaakaar ku jël ar ar bi def ko def ko wëru way amna yaakar ne da ngay yaangi def lo xamul wa mamran mu ngi ci leneen lu bokkul ak ay business ok kon mamran mu ngi ci leneen leneen euh, comédie comédie comédie ah, ok d'accord léegi kon Mame Rane danañ gis euh, TFM mhm. nga daan def euh, l'émission mhm. ñëpp doon la xaar xaar ah, ñu dem ba ba benn moment déggatuñ Mame Rane gisatuñ Mame Rane waaw jàmm ak salaam parce que li may wax rek chaque jour ñu invité ma laaj ma ci loolu ma wax leen ne leen télé mooy tëdd noonu ndax man li may wax chaque jour rek contrat laa fa am te tout le temps ñu ngi respecté sama diggante ak ñoom li ci war mm. donc euh, dañ ma doon woo ma ñëw def émission mm. xëy na bu ñu soxlawaatee Maodo ci plateau yi oowaat mm. parce que comme ni ma ko waxee rek fi laa toogoon ñu woo ma dem naa ba yàlla dogal tey jii ma gëj def émission xëy na bu ñu demaatee ba gis loolu lan gisoon ba taxoon ñu ooma dinañ ma woowaat loolu rek laa laa laa ci man di tontu parce que man moom li may wax chaque jour rek euh, li na ci man yàlla moo ko def mhm. kenn mënu koo dundi ndax sakuma ko mhm. mbiru sunu borom la bi ma doonee xale ba léegi nii laa musa mel mhm. tey euh, bu ma génnee fii fu ma mën a dem bu ñu ñi gisee ma ci ndaje mi day ñëw toog parce que xam na ne foofu mbégte rek moo fa am kon donc man du télé laay defee comédie nii ma mel nii nii laa musa mel maam raan ba ma juddoo ba léegi nii laa musa mel kon donc euh, bis bu yàlla dogalee moo war a commencé waat émission yooyu noonu askan wépp den ma gisaat ci plateau bi ma toog jamono ji ñu toll ñu toll nii euh, artiste comédien yi bëri na képp ku jóg naan def comédie comédie est que ñoo ngi respecté charte yi nga xam ni euh, comédien dëgg moom la war a yor yor waaw euh, xam nga mooy li ma la wax léegi gis nga doomu aadama bu nekk ci li ngay yëngatu il faut nga wane ci dignité il faut nga wane ci fulla ak fayda mm-hmm. léeg-léeg nga gis artiste yoo xam maanaam dañuy am taxawaay boo xamante ne yow doo bëgg sax doon artiste mhm. ndax man dama bëgg nit ku am ku am personnalité dama bëgga nit ku diñ ci boppam mhm. ndax démb li amoon mhm. euh, bari woon na bari goo xamee koo ko jaay du ko saf mooy dignité ak fulla ak fayda donc léegi nag dafa xaw a dafa xaw a manqué ci réew mi ndax léeg gis nit mu am comportement boo xamee yow doo xam sax lii lan la donc man art bi may def message la yu may jàllale yoo xamante ne nii même bu dee dama koy def ci wàllu comédie mhm. damay bëgg képp ku ko dégg nga am loo ci jariñ mhm. donc man hmm, Mamran léeg-léeg moo wax ne man comédie bi may def mhm. euh, bu fekkee ne sama dignité ak sama personnalité dama ko ci ñàkk man ma bàyyi ndax doo ma gis ci yu ñàkk fayda wala nga may def ci yu doyadi waaw ah, man hmm, dinaa la reetaan loo mais dinaa garder li ma moom waaye nag artistes yi ma leen di mooy que ne léeg-léeg nga gis artiste bu dem ba toll benn âge bi mhm. ñu koy ñaanal ay ndimbal mhm. wala ñuy wax ay ay social ci moom mhm. loolu nañ ci bàyyi xel euh, préparer seen bopp avant ñuy àgg foofu parce que Sénégal kenn dimbaleetul kenn ci ta lampa yi tàkkul donc boo nekkee ci réew moo xamante ne nii pour ñu dimbali la foofu lampa yi leer donc yow yaay am ay euh, taxawaay boo xam ne yaa koy njëkk ci sa bopp donc li naan nit ki man bañuma ma ko ma may mais boo may may danga may dab waaw man ma ñaan kenn TFM est-ce que Mame Laye ñu ngi koy gis ci yeneen produit maanaam est-ce que am nga yeneen produit yoo xam ne joué nga ko joué nga ko en tant que Mame Laye waaw en tant que Mame Laye mooy que ne comme ni ma la ci koor gi maa ngi doon joué maag Collé Laye ñu ngi ko waroon defar sax ci tabaski bi mm. mais nag xam nga ak dëkk bi fan yii ni mu mel mm. waaw moo taxoon nga xaw ko pause ñu ngi déggante démb rek ma ngi ci doon wax ah, ak tamit gaal na waaw mais instant bii nii nekkatuma foofu waaw dara parce que mooy li ma la wax nii rek gàll na Célès dama fa doon dem parce que boobu dama dama dama dan ma fa sentiroon mm-hmm. xëy na ñoom li tax euh, ñëwatuma fa sentiratuñu mm-hmm. que ne Mamadou war na feeñ foofu loolu la loolu laa gis moo après ci laa créé benn affaire mën a colle ci mm-hmm. ci ci kii bi ci korte gi waaw kon Mamadou su ñu déggee baax léegi da nga téye sa lii sa bopp di di leeral di jëlee sa bopp. waaw sama yëfi bopp man maa ngi ci télé bi ba léegi maa ngi TFM ba léegi nii may wax ak yow parce que li ma lié ak ñoom ba léegi mu ngi foofu mooy contrat bi ma lié ak ñoom man ci laa nekk ba léegi donc man ñu ngi respecté sama diggante ak ñoom li ci war donc sa tey tey bu ma woowoon tey tey tey léegi nii fii may wax ak yow émission ni suñ ma woowoon léegi ma jug léegi na la ñu def noonu parce que ñoom ñoom ñoo damaa tënk ak ñoom loo xamante ne nii ji ñoom

waaw man li ma ci li ma ciy wax daal mooy que ne xam nga mooy li ma la wax sànq bi may débuté léegi ci sama kàddu ak yow nee naa la li ma ciy neex mooy nit ñi ni ñu ciy bëgg parce que doomu aadama boo bëggalee kenn koo xamee mhm. donc tey stress ni mu mel nit mhm. woo la ne la damaa am stress mais yaa ko dindi mhm. ndax fekk nga ma ci dimension boo xamante ne ni tey yaa dindi stress bi nekkoon ci man loolu moo tax xaalis léeg-léeg ma tëdd sama néeg nit woo envoyé ma xaalis boo xam ne moom moo ko liggéey donc man ba mu koy liggéey fekkew ma ko mm-hmm. mu may ma ko ci mayin boo xamante ne xolob moo ci sedd ci man mm-hmm. donc yooyu ay mbégte la yoo xam ne dama ko ciy am mm-hmm. beneen bi mooy que ne euh, du ñàkk nag ngay am yoo xamante ne ni léeg parce que àddina ñëpp bokk yem donc léeg nga déglu ay ay audio wala nga stati nit tontu la loo xam ne donc yow yow yaay gérer rek xam ne àddina moom moo tëdd noonu parce que boo nekkee ci réew moo xamee amaana ñi la ëpp maxaama ñëpp dépassé nañ leen ci yenn euh, ci yenn mm-hmm. kàddu yi mm-hmm. yow buñ la dépassé yow mi nga xamante ne nii nit simple nga rek mm-hmm. warulaa metti parce que war nga jël loolu taf ko foofu te ñun dañoo euh, bokk ci xeetu Seydina Muhammad euh, mu ñu doon ay nit ñoo xamante ne nii moom la ñuy jël repère moom la ñuy jël rowaay am na luñ ko tegul kon donc ñun lépp lu ñu waay teg rek dañ koy dañ koy gérer xam ne c'est la vie àddina moom moo tëdd noonu waaye man du ma am dara loo xam ne bon dama kay dama koy day daf may metti ba nit diko xam léeg-léeg nit nama yow xana do am lula metti yow parce que chaque jour ken xamul lo am ak lo ñak donc man nit la ko xamé dañ ma yar ci ci ak doylu mm-hmm. dañ ma yor ci ci dignité mm-hmm. dañ ma yor ci ci ci dal mm-hmm. ñun ay layen lan beneen bi moy man Mamran sama tour ak fi ma bokku euh, dama koy sedd ci lu bari donc même bu dee damay def comédie damay def comédie bo xamante ni tay képp ku tax ci Mamran wala nga xam soo ma seetaanee rus man sumay dom ño gëna nek samay fans li may wax ak yow nii mm. saa bu ma defaree vidéo dañ naan papa envoyé ma ko donc tey su fekkoon damay def ay audio yoo xam ne mm-hmm. ñoom buñ ko déggee mm-hmm. amaana man damay rus mm-hmm. mais su ma leen rombee ak samay seeni morom dan dañuy damay taxaw ñoom kaf ak ñoom ñoom kenn ku ne seeni morom sax da ngay dégg naan papa Maodo doo ma envoyé sa vidéo boobu donc man bu ne dama def xam ne euh, lu ñaaw la wala bu ko nit déggee taf euh, ay noppam su ma leen rombee damay suufe si ñoom donc moo tax Mame Rane nit la koo xamee mm. li may wax li may wax chaque jour aar bi mm. ba ci xale yi ciy dugg maa ngi leen di wax ne leen mm. lépp lu ñuy def nañ ciy sedd ëllëg parce que ëllëg du añju reer mais lu mat a sedd la nit ki am na foofu âge boobu boo fa tolloo ñu wan sa image war ngaa mën a sedd image bu rafet loolu dafa am solo ci nit daal li ngay def nag doon na loo xam ne man du sa toogaay mais daf man daf ma neex ndax man dama bëgg nit ku kuy dox ci jàmm moo tax kor bi ñuy déggante te gisantewul ma lay tooñ parce que setan na la avant ngay ñew di def ak man ay ay émission mhm. mu nga doon nit ko xamé nit ku bax mhm. parce que nit bo ko jakk rek xam li yalla dogal ci mom mhm. donc kon dañ lay ñaanal li sunu borom yalla na la ci yalla gëna ful may la ci lu kawe sa njort ci barki yonenté bi ndax adina mom non la quoi xalé mom bo nekké ci adina di créer lo xamé ne bëgg nit ñi di bëgg lolu ak kenn amul sa fay bi dama lay teunkal ne la man nit nekk na hôpital ñu koy envoyé samay ojo ba mu wér. waaw loolu loolu loolu dund naa ko ci hmm. ci li ma ci dund dafa bari dafa bari trop. audio yi may def hmm. nit woo na ma ci wax ma ci digganteem ak jabaram man maa leen jubale audio yi may def su ma la waxee li ma ci li ma ci li ma ciy dégg par bis. non fii duñ fi jóg donc nag comme émission la sa temps la ñu mu bëgg di jël benn temps bi mais wax dëgg yàlla li ma ci ñun ñuy wax retour yi ma ci am moo ma dàqal xaalis vraiment. tiyaanan nax nan ah? Ah, ma ci nag tiriyaanan ma ci ba ah waaw tiriyaanan ma arab sénégal moom tiriyan donc fan yi lan yóbbu sama netta netta deux millions deux millions fan yi lan ko yóbbu ma nga morok maa ngi koy nuyu waaw Lamine la maa ngi nuyu ma nga morok da nga xool ne ko Lamine maa ngi lay la boo sama natta bi dimbali ma nga ja yónnee ma ci sax un million ma ma kii ma ma jënd ci xar kooku daf lay tiriyaane waaw waaw du man kase du man kase du man kase Lamine dimbali ma ma am xar yoraguma ko de natta ba nga yóbbu day moo ma yónnee waaye yónnee ma deux cent mille léegi. ah de ma jënd tim xar. a Lamine. ab sikkim la yor dama nga Maroc. Lamine loolu maa ci gën a ndaw de ñeen nañu quatre millions ñeen nañu cinq millions natta bi ngeen doon dégg fii ci poste caar Lamine moo yóbbu suñu xaalis ba. man sag weer quatre vingt mille euh, quatre vingt dix mille natta ah. mais mais mais nag addina euh, noonu la hmm. Euh, moom dem na ak natta bi mais ñun ñoo ko ëpp jàmm mhm. ndax maa ngi nii bu ma jugee léegi fu ma neex lay dugg mhm. waaw loolu liberté bi ma am mhm. moom amu ko te boo nekkee ci réewam jàmbur moo xam ne mënoo faa déplacé wu ñëw ndax li lay fiy xaar mooy li may wax chaque jour rek àddina euh, li gën a neex ci àddina mooy dund ci liberté parce que lii ko lii mu lii ko dal nii na loo xam ne amul lu ko gën a métti moom fi mu toll moom dafa mel ni ku ne saamet waaw parce que sañ te ñëw wala bu ñëwee fii dina fi fekk ay plaignants yoo xam ne man moom sama wàll baal naa ko waaw man moom sama wàll moom baal naa ko ko waaw baal naa ko ko baal naa ko parce que xelam moo toll foofu yàlla na ko yàlla defal jàmm fa mu ne euh, maa ngi koy ñaanal yàlla na ko ñaanal ñëpp am xol bi ma am mm-hmm. ba jéggal ko man moom jéggal naa ko quoi vraiment jéggal naa ko mm-hmm. ah, kàddu yi rafet na mm-hmm. doon am na contentement ndeysaan di la dalal ah l'humiliation bi sax euh, mhm. la moo si amoo parce que man mhm. foog naan bu moo ñëwee mhm. du ma du ma eggali euh, bi damay di di di def ma lu lay laa doxaat mais alhamdulilah rabbil alamin <laughs> ba nga amee <laughs> waaw waaw maîtrise maîtrise <laughs> euh, nee naa leen saa suy nag leen beneen artiste la ilaha illallah Mavrat yaay lii yaay yaay tàggatoo maanaam yow yaay tek émission bi. léegi léegi nag bu ma leen. tëjee nga tëj mu tëj waaw. voilà mu ne ah, ah man laa bëggee soo yéen xam xam ngeen xam ngeen man. ay lii ba jàmmal. waa léegi. waaw ma ne kii di ngeen ko mënti wutal porte-parole muy toog ci wetam. am na gis nga léeg-léeg nga gis sëriñ soo xamee ñoom dañuy am ay porte yu toog seen i tànk bu nu waxee ñoom leen koy bee ñu wax jaadu na ah sonn naa bu la ñëwee bu léegi ñaari man bu ma tëddee damay nelaw suppa kanja laa waroon a commandé avant ngay ñëw ah na. waaw léegi maam daal léegi lii euh, waaw. allahu akbar waaw mais ñu ngi leen di jaajëfal di ah, leen wax ma ne ah, <laughs> ah bi ah ñu ngi ah ñi ko doon seetaan ñëpp di wax ne yàlla na nu yàlla defal jàmm metti woon na métti woon na waaye daa yàlla dogal na muñ nan ba mu jeex ak jàmm. man bamu jiddo man ba legi man ma gis man ku met ah deux tonnes la wax di deux tonnes lay don day ñew ba nga yaakaar non la nakati amna na arrêt ah day jaar ci place bi do daal ni mi jaar moy tax day métti boo defee nga mission li metti na wa li ba jàmm la ay yalla li ba jàmm yalla yàlla <laughs> mais ko naa yalla yalla do la jàmm ko naa trop